six. Barthélémy mooy sunu Barthélémy mooy sunu frère mooy sunu xarit man Marissa Laal yow am na fu nga fekk Sénégal yëpp xam nañ ko kon nag bu ñu wooyee ci ci gàmm ñu ko mais bu ñu wooyee nag ay ñu fekk si ko dañu bàyyi Khalifa Sall pour tranquille ak Barthélémy dafa dafa ne combat la mais jël na avance na ko bëre ji bu boobaa nag de Dakar que le meilleur gagne mais c'est le leader qui parle peu et qui travaille beaucoup nee naa leen Barthélémy Diaz c'est l'enfant chéri infatigable du Sénégal loolu kenn mënu ci dara c'est le maire des maires nañ ko nangu kon nag ñun askan bi ñoo ko bëgg yóbbu ville de Dakar te incha allah dañuy dem ville de Dakar.